delloo ziar naka coono yi naka vote bi tout se déroule bien salaamaaleykum soxna Ami Mbacke je suis investie sur la liste dama ñëwoon seet leen ndax euh, lépp mu ngi jaar ci yoon ba xam amu leen benn jafe-jafe tamit mooy ndox mi quoi non man xam naa askan bi ñuy fit ñi bi dañoo teel a ñëw ndokku lekk parce que yónnee naa fi ndékki waaye maa ngi indi ndox dinaa leen yónnee añ tamit incha allah ndokku xam naa ñoo ndokku ndaay dañoo teel a

donc ñëw nañ voté nañ euh, constat bi nag ci alie mooy euh, ba fim ne nii ñuy wax ak yen lépp mu ngi déroulé normalement rencontré nañ yenn président bureau de vote représentant bureau de vote yi aussi mais kuñ ci laaj aussi mi ngi ñuy xamal ne daal li li leen fi indi ñu ngi koy doxal nit ñi ñu ngi génn xëy na nag euh, masse bi ñu doon xaar amagul parce que Touba particularité bi xam nga jigéen ñi ñoo ëpp ci kër yi dañuy dem seen kër togg lijjanti seen i kër soog a ñëw voté donc bi di ñaan yàlla élection yi jaar ci jàmm ñu euh, voté ko ci jàmm ak salaam parce que comme ni ñuy wax Sénégal c'est un indivisible suñu réew la suñu jàmmi réew moo ñu ñor yàlla na élection yi déroulé wu ci ci jàmm ak salaam. mais am na ay euh, euh, kàddu yu faral di jóg dégg nañ bi ci mel ni wax nañu ne dafa am ay nervis yu ñu fi indi am na ñu ñu tudd seen tur bokk na ci Soxna Amy Mbacké ak sëñ Cheikh Thioro aussi déclaration yooyu ñu wax ko yow en tant que investi ak koo xam ne. responsable benn waaw xam ngeen ay observateur ngeen déjà man bi may egsi ci seen kanam laa egsee ngeen di ay journaliste man sama oto laa wàcc ak sama membre famille. Mhm. donc defe naa ne sama staff euh, ñooñu ay nervi amuñ fi opposition bi nag ils sont dans le rôle mhm. xam nga opposition comme son leen l'indique day def bruit c'est pour exister mhm. on le leur concède mais fu mu nekk nii daal tey moom li ñu tal mooy vraiment euh, campagne bi jàll na wax yu ñaaw yi jàll na nañ bàyyi Sénégal ñu voté ci jàmm dellu ci suñuy activité liggéey parce que tamit y a un temps pour faire la politique mais y a un temps pour travailler te fu mu ne nii temps de voter après nit ñi delluwaat ci seen activité pour la stabilité du pays defe naa euh, loolu moo gën agissement yi ñuy def nii euh, di di ah, def intoxication ci loo xam ne ñoom ñu koy wax sax xam ne ñu du dëgg parce que nervi pour lan man comme j'ai dit sànq bi ne ma yéegal sa oto dama ne Touba kenn ma fi utal frontière mhm. alors xeexu ma fi xuloo ma fi je suis pas dans la violence te loolu bu ko ñëpp prôné euh, yoon ci champ politique bi parce que affaire bi ay argument la waxal nit ñi ku ñu gëm daañ la voter mhm. mais jaay dooleeg teg ay mbër ñoom Cheikh Thioro bi muy egsi mi ngi ànd ak gàngooru mbëram xanaa bi mu ñëwee fekk ma fi may jigéen war na am kersa mhm. man ànduma kenn moom dafa ànd ak au moins ànd na ak vingt mbër ci oto pour lan dañu arrêté violence yi Sénégal benn ni la moom bu politique bi jàllee li ñu bokk mënuñu ko seddoo ñi nekk ci champ politique bi kenn ku nekk ni nga bokk sa morom mënoo ko yóbbu donc nañ ko rafet